li nga xam ne moom la président des sages yëkkati le président national des sages yëkkati ànd ko ak ses militants nun bureau national nun bureau Kaolack bi dañ si ànd gërëm leen sant leen wane ne sunu accord à cent pour cent si loolu ndaxte ne kilifa gu tonni le président de la république du Sénégal su wootee ab daje ne na leen ñu juboo na leen àndandoo woote au dialogue loolu lu ñu war a rafetlu la lu kenn ku nekk war a ji la si kaw loolu ñu war a wuy ji pour président de la république ndax bu ngeen seetloo nag guerre mondiale sax su autour de table lañ koy lañ koy régle suñ demee nag ba nga xam ne bii gars yi ambition am na si jamono yoo xam ne yii gën a ñi ngi war a jëm élection présidentielle kenn ku nekk sañ ngaa bëgg waaye sañoo yàq kenn ku nekk sañoo wax wax ju ñaaw sañoo jëf-jëf ju ñaaw suñ demee nag ba am jëmm yoo xam ne yi gën seen xel ak seen xol lu mu leen xiir mooy jox lu ñaaw ak jëf lu ñaaw kon moom mi nga xam ne mooy président de la république nekk père de la nation ñu dégg ko suñuy kàddu war naa mën a yëkkati kàddoom na leen kaay leen ñu waxtaan kaay leen di waxtaan nag ku bëgg jàmm koy def te waxtaan it kenn rek du ko def mbooloo mbooloo koy def kaay leen di waxtaan ñëw waxtaan si rekk jaadu ku ñëw waxtaan si nag ku bëgg jàmm la ku bëgg réew mi la ku ñëwul waxtaan si nag danga ñëw wane ne yow bëggoo jàmm bëggoo réew mi loola nag des na yéen ndaw yi ngeen xam ko nun mag ñi ñi xam ko te damay wax ñaar damay wax ne ne ndaw yi mënu leen a dem bàyyi fi mag ñi mag ñi mënu leen a dem bàyyi fi ndaw yi ndax yéen yéen a yor doole ji yéen ay jëf waaye nun ñoo yor xel yi ñoo leen di digal kon nag ngeen ñu déglu ñu di leen wax li nga xam ni yéen moom ngeen war a def ñu bañ leen a nax si biir loolu ñi ngi demandé ak képp koo xam ne ci ngeen da ngaa nekk si réew mi te war a wujj si dialogue bi yaa xam opposition bi nga bokk yaa xam société civile nga yaa xam si loo mën a doon maa ngi lay ñaan nun saa si benn bokk yaakaar di la demander à ce nga répondre au dialogue du président de la république waaye magam waxoon naa ko moo gën ma xam xamoon naa ko dañ leen koy wax sa teel balaa ëllëg si biir ñu xamoon nañ ko kon nag déglu leen mag ñi ñuy wax ak yéen li nga xam ne président wax na ko fii léegi mooy lu dëggu gone dana yéeg si kaw jàng du seen dara mag toog ci suuf seen lu seen seen la xew ëllëg te la xew ëllëg kat xet gaa ngi nii xeeñu leen ak yéen gone yi waaye nun mi ngi xeeñ la ñuy xeeñ nag lañ leen di dànkaafu lool bu mu leen dab na ngeen taxaw si dëgëral seen bopp na ngeen taxaw si ñi ngeen ànd ak di seen i xarit wala seen i kilifa nga xam ne war ngeen a man si ñoom dara ngeen wax leneen nañu wuyu au dialogue nañu wuyu le président de la république ñi ngi beral gërëm yi nag le président wala le ministre conseiller religieux Mohamed Ndiaye Rahma si jàppale gi nga xam ni jàppale nañu ko fii ñu toll nii ngeen jàppale nañu vraiment ndax tax nañu saal dimbale nañu si ndimbalam pour ñu war a mën a dimbalante suñu bopp. mais du la xam ne nun ay charge lañu ñu point boobu indiwuñu lu ñu indi mooy président woote na jàmm wujji leen ko si jàmm ak koo mën a doon nit ki mënoo xam géntam te waxuloo ko nit du nettali gént ak boroomam. waaye dañ may wax li ma doyee bala maa ñëw loolu moo néewul moo moo néewul yoon nit ki bu na la kaa ñuy waxtaan benn ñaar rekk si am dana la wax walla walla mu def nga gis mag nag magam jëmm lay doon bu ñu ko waxee xam na bu ñu ko jëfalee xam na loolu mooy li nga xam ne mooy sunu position ci problème boobu